boole suñu bopp ba doon benn bañ a xajal seytaane suñu diggante soppante wóolonte di diisoo bañ a xeebante jàppante bu dëgër ba dara du nu mën a teqale bokku xalaat bokk yéene nu doon jenn jëmm joo xam ne lu metti sa morom metti la luy sa bànneexu moroom di sa bànneex kenn ku ne di bëggal moroomam li mu bëggal boppam sa soxla moroom di sa soxla di yërëmante di dimbalante di demlante kenn bañ a gis ngëneel ci boppam ci kaw moroomam